mbokki déglukat yi ñu ngi leen di dalal ci rajo Takaful waxtaan bi ñu duppee waxtu jàmm ki leen koy defal muy programme bi di jàppale askan wi ci wàllu koom ñu tuddee ko Takaful ci waxtaan bi weesu bi xujja di xaar résultat wu jongante bi ci biir këram ndumbe ak moodu agsi nañu di daw ñu ngi naqarlu ndax mënuñoo voteel seen yaay xujja daal di leen xamal ni lu jaatu la dañu war a xaar ba ñu am fukki at ak juróom-ñett ngir mën am àqu vote mu dalal seen xel daldi leen xamal ni am nañu ay àq ak yelleef yu bare mel ni que yeneen xale yépp xale yi am nañu àq ñu sàmm leen ci bépp xeetu metital ak loraangi am nañu itam àq ñu yar leen jàngal leen faj leen waaye itam am nañu àq wax seeni xalaat anta yegg si na kër xujja mu ngi mer lool ci taawam bi xujja di xamal anta ni dafa war a déglu doomam léegi nekk na xale bu góor ma demba yegg si na di waaxu indaale xibaar bu rëy ci dëkk bii di Ceenu fenn ci biir Mauritanie xujj ak njabootam ñoo fa nekk ñu netti leen seeni jaar-jaar. xujja xujja xujja. lu xew lu xew. xujja résultat yi lan la lan la. waaw wax nu Lamine moo gañe loolu la. xujja yow yaa jigéen bu njëkk nekk maire commune bi. woy woy xujje gagné na wuu xujje gagné na wuu xujje gagné na. ah lii de moom du dëgg lii de moom gëmee moo ko sax. yaay yaay gagné nga yaa fi gën. bravo yaay gagné dëkk bi léegi loolu muy tekki. ah sama doom loolu mooy mi ngi tekki ni léegi liggéey bi soogaam tàmbali. woy woy xujje gagné na wuu xujje gagné na. ci ëllëg góor gi Birane ñëw na seet ci maire bu bees bii di njiitu commune bi. jàmm nga fanaane madame le maire nanga def. kooku góor gi Birane bismillah yagsil. bismillah sama waa ji Birane def ak coono yaakaar naa ne ñun ñëpp yaa nu gën a sonn. maa ngi sant jërëjëf dama ñëw ndokkeel sama waay xujj li ëpp solo am na léegi yaay meeru commune bi bég naa si yow lool. lu gën a jafe mi si suñu kanam. léegi dañu war a soobu ci liggéey bi Birane maa ngi lay sant bu baax ci sa taxawaay ci xalaat yi nga ma doon xelal ci diiru jongante bi yaa baax amuloo moroom bégg naa bi mu la jàppalee ba nga raw Lamine mi amul xel xam naa dinga jàppale waa dëkk bi bu baax jërëjëf Birane waaye mënuma liggéey man kenn laaj na mu am ñu ma jàppale soxla naa sa ndimbal danga war a des ci sama wet léegi nii la liggéey bi dëgg di tàmbali mbébét yi nga am yéene def wóor na ma ni ñëpp danoon sawar jàppale la man dama xaw a mage xujj dam laa war a bàyyi ak ndaw ñi. ndaw ñi ñoo war a tax nga war maa gën a jàppale. sa mbaax foo ko takk weesu na ko soxla naa sa ndimbal. Ndumbe xale bu jigéen bi xaw ma ko mooy kan. yaay kii mooy Fatou. tonton Birane na def. nangeen def xale yi. yaay man ak Fatou ñooy jàngale. dafa am ay jafe-jafe. ma ni ko comme léegi yaa meeru dëkk bi mën na am nga jàppale ko. waaw Ndumbe xamuma mën naa nekk faatu lu la dal. dañu ma xamal ni mënuma def sama ay examen te sama jàng day dakk te man dama bëgg jàng. moom mooy pee sa lekkool ba moo faraw. Mhm. waaw lan moo tax mënoo wéyal sa njàng. waaw amuma kayitu juddu. say waajur bi juddoo taxawuñ ci lu tax. nee nañu lu mu laaj ci koppar dafa bare dafa jafe te naqadi defar rax ci dolli amul benn njariñ waaye man dama bëgg a di jàng sa ay waajur nekkuñu ci dëgg sa àqale yow nga am kayitu juddu kayitu juddu day tax nga mën a faju soo feebaree nga am fi nga bokk nga mën itamit jàng jàng bu jaar yoon say waajur war nañu xam li àdduna bi tey kenn mënu fi dund dund bi yowan te defaraloo sa ëllëg soo amulee kayitu juddu ak yeneen kayit yu findeel ni fi nga bokk dinaa dem